Christian Sambou maa ngi lay nuyu. soxna si maa ngi lay fay. voilà Christian Sambou nga nekk docteur en sciences politiques déjà euh, situation bi nga xam ni moo am ca Niger ma lay laaj euh, ban jàngat nga si def exactement. alors Niger Niger soxna si maa ngi lay maa ngi lay gërëm ci laajte bi Niger daal coup d'état moo fa am depuis le vingt six juillet euh, coup d'état ba fin journée vingt six juillet ñu ci bëri foog ni tentative de coup d'état la. mais militaires yi bu ñu génnee euh, annoncé ni que euh, def nañu rupture constitution maanaam euh, def nañu constitution bi ci lañu dëggal ci lañu dëggal coup d'état bi. waaye warul doon lu war a bett nit yi ndax ndaxte lu jiitu coup d'état bi président Bazoum ci boppam ci élection yu deux mille vingt et un après élection yi victoire donc am nañu ñu génnoon pour contester. tout cas amoon na ay mobilisation ay ñaxtu par rapport ak élection yi donc opposition bañoon ni bañoon ni Bazoum moo gagné moo gagné élection yi donc contestation yooyu tax na tey Euh, presque euh, moitié population ou moitié électeur Niger yi ànduñu woon trop ak programme programme Bazoum loolu ci man tax na euh, tax na lu tax coup d'état bi xaw a yomb te warul warul warul bett nit yi waaye tamit coup d'état bi dañ koy jàng ci beneen fànn mooy Niger dafa dafa bokk ci ci région bu ñu naan Sahel central te euh, ci Sahel central boobu ñett dëkk la mooy Niger euh, Mali ak Burkina te Mali ak Burkina euh, jot nañu am coup d'état yu bëri ba pare donc ay coup d'état répété yoo xam ni militaires yi ñoo jël pouvoir pour jéem a régler benn problème kaaraange mën na problème sécuritaire donc ñett état yooyu dañoo am euh, dañoo jànkonteel ak problème kaaraange mooy euh, terrorisme bu ñuy dégg et lépp luy euh, tamit banditisme waaye tamit conflit conflit intercommunautaire donc lépp luy gouvernance ci dëkk yooyu ci ci ci loolu ci loolu lañ koy nattee maanaam gouvernement nan nan lay xeexee contre contre terrorisme boo xoolee Mali ak Burkina euh, ñooñu dañoo lëkkaloo ak yeneen dëkk mel ni euh, mel ni par exemple Mali pour mën a xeex contre contre terrorisme boo xoolee Burkina euh, Burkina dafa dafa lëkkaloowul directement ak russi waaye dafa jël doomam yi def leen ay VDP ñu leen ñu leen di woowee volontaire de la défense patriotique jox leen ay gànnaay pour ñu xeex contre contre terrorisme doctrine boobu nag gu ñëpp ci ànd ci euh, ci sous région bi te président Bazoum bokkoon na ci ñoo xam ni dañoo daan euh, dañoo daan critiquer euh, genre doxalin yooyu donc ñu ngi partagé ay réalité mooy problème kaaraange mais mais déggoo ñu ci ñuy xeexee contre contre contre le terrorisme beneen problème bu ñu am en commun mooy problème. humanitaire euh, ak conflit yi am déplacé yu bëri mouvement de population yu bëri ay maanaam ay réfugiés ay déplacé interne waaye am tamit ay problème de protection civile maanaam euh, citoyen nigérien yi malien yi burkinabé yi ci fu ñu dëkk dañuy am ay problème ak euh, ak ay ban ay bande armée parce que tamit kaaraange amu fa armée armée ci yeneen région par exemple boo xoolee boo xoolee Niger lu mel ni Tillabéri Tawa ak Difa am na ay euh, ay zones yoo xam ni militaires yi nekkuñu fa parce que amuñu doole bi amuñu gànnaay donc problème de souveraineté yooyu mooy posé wu ba tey nit yëpp foog ni que coup d'état lu ko mën a faj mooy militaires yi am doole nekk ci bopp réew mi mën a faj euh, problème boobu loolu mën na nok mën na nekk erreur nag waaw mën na nekk erreur parce que état nguur du problème kaaraange rek du problème sécuritaire rek peut-être que militaire moo gën a moo gën a moo gën a xarañ ci lépp luy gouvernance sécuritaire gouvernance militaire waaye euh, loolu bu jeexee gouvernance sécuritaire bu jeexee am na yeneen problème problème yoo xam ni euh, ay ay problème de gouvernance économique la gouvernance financière laaj bi mooy est-ce que militaires yi mën nañ def genre genre genre genre liggéey yooyu voilà donc mm-hmm. euh, pour pour résumer wu ci Niger Euh, coup d'état bi source bi mooy d'abord problème légitimité bu bu Bazoum donc euh, loo xam ni mën mën nga ko natt ci ci ci élection yi deux waaye tamit problème de gouvernance sécuritaire euh, face au terrorisme face aux groupes armés non étatiques Euh, Christian euh, ñu gis ni euh, Guinée dafa nar a lëkkaloo ak Mali ak Burkina Faso Faso plutôt pour solidariser avec le Niger fas yéene jàmbaarloo ak CEDEAO si jamais ñu jéem a intervenir militairement au Niger tey ji loolu yan conséquence la mën a jur exactement. waaw conséquences yi mën nañ ko natt ci ñaar ci Euh, d' abord euh, mën nañ nekk genre solidarité yooyu entre Guinée euh, boo xoolee Guinée Mali Burkina ak ak Mali ñoom ñëpp en fait seen nguur yi militaires yi ñoo ko yor donc solidarité boobu mën nañ ko mën nañ ko comprendre face ak bataaxal CEDEAO boo xam ni day sanctionné Niger ci lu xew mais solidarité bi lu ko lu ko tax jóg sa mooy euh, ulti ultimatum bu waa CEDEAO joxe ci intervention militaire bi dans maanaam dans ci euh, ci fukki fan bu ñu delloowul euh, pouvoir bi Bazoum militaire bu ñu delloowul pouvoir Bazoum ñoom dinañu intervenir donc solidarité bi ci la ci la jógee nag mais c'est pas la première fois que genre solidarité yooyu di am puisque Mali bu ñu ko joxoon defoon ay sanctions tamit genre solidarité yooyu gisoon nañ ko waa Mali seen produit yëpp ci port port Guinée la daan daan jaar mais seen carburant tamit di jaar côté côté nord ak Algérie yi donc solidarité yooyu lu yàgg lu yàgg lu yàgg am la waaye ban conséquence la la mën a am conséquence bu ci njëkk mooy euh, mooy CEDEAO ci boppam en fait tas voilà parce que genre genre situation yooyu nga joxe ultimatum nga créer ay conditions pour euh, ay dëkk entre ñoom ay dëkk africain mën a mën a mën dem xeex loolu genre genre situation yooyu day désintégré euh, communauté lu mel ni communauté euh, CD CEDEAO euh, loolu mooy conséquence bu gën a parce que fu ñu nekk nii fu ñu toll nii mën nañu nakk ni que consé sanction yu waa CEDEAO jox mën na bañ a am njeexital c'est-à-dire sanction yooyu gisoon nañu ko ci Mali ak embargo Mali donc sanction économique sanction financière fermeture des frontières terrestres et aériennes mais joxewu résultat yu ñu yu ñu yaakaaroon donc Mali tey ñëpp gis nañ que voilà mi ngi continuer mi ngi gagné souveraineté mi ngi am ay yeneen partenaires sanctions yi sax tax na sax Mali dem ci yeneen partenaire gën a radicalisé wu gën a voilà dem ci euh, euh, outil souveraineté am dagal naa ni Niger même chose mooy xew. te dina gën graaw bu fekkee intervention militaire yi diplomate CEDEAO yi dañ ko war a jël au sérieux donc mooy première conséquence bi conséquence bi CEDEAO yi lay lay nekk mm-hmm. léegi beneen conséquence bi mooy genre genre euh, genre sanction yooyu euh, genre confrontation yooyu population civile yi ñooy jëkk nekk victime yi maanaam tey Niger dafa nekk ci situation bu métti Euh, mooy situation sécuritaire bu ma décrire sànq nii mais waa situation humanitaire parce que am na ay réfugiés am ay déplacés mais tamit situation de de de protection donc euh, tey Niger ku ko dooleel la soxla waaye du ko ku ko ku ko xoxotal ku ko menacé donc loolu mën na nekk sanction bu rëy ci le fait de fermer la la la la frontière te confrontation boobu. mën na jur ay jéye ay yu. Euh, euh, léegi euh, dernière question Christian maanaam ban influence la Russie am ci li nga xamante ni mi ngi xaw Sahel ñu gis ni les militaires dañu commencé nangu carrément pouvoir bi ci civil yi ban influence la si Russie am. alors Russie ñu ngi koy tudd ñu ngi koy tudd ci mbir yu bëri donc ñu bëri yaakaar nañu que dañoo yaakaar ne que Russie en fait am na implication. Euh, direct wala indirect ci lu xew euh, lu xew Niger amul lu koy firndeel de manière de manière exacte donc war nañu moytu ci genre euh, genre affirmation yooyu mais lu ñu mënti wax mooy Russie tey am na intérêt ci lu nekk di xew di xew Afrique parce que boo xoolee boo xoolee bu baax France moo positionné woon comme puissance moyenne jàpp ni que Afrique moomeelam la ci ci lu bëri. donc euh, te France boobu euh, tey moo nekk tamit en conflit ak euh, Russie ci crise bu ñuy wax crise ukrainienne donc pour Russie tamit mën a mën a ñëw Afrique di di di di di di di jàppale jàppale pays africain yoo xam ne dañ koy woo ci ndimbal pour ñu libéré woo ci ci dictat ci ci dictat imposition imposition France loolu intérêt bu rëy ci Russie parce que day permettre di équilibrer rapport de force yi loolu day permettre euh, euh, équilibre de rapport de force mais tamit bon yeneen intérêt yi mooy euh, may tey Afrique puissance yëpp ñoo bëgg am positionnement géostratégique Afrique te Sahel central en termes de positionnement géostratégique ci àdduna mooy région boo boo xam ni Euh, boo xam ni moo moo ci moo ci moo ci gën a taxaw donc euh, en terme militaire comme en terme en terme politique diplomatique ñëpp bëgg am ay base par exemple Niger ñëpp bën a bëgg am euh, taxawaay ci ci Sahel central donc loolu mooy intérêt Russie bu ci naroon am intérêt loolu mooy intérêt dëgg Russie te day tey gëm naa ni que day profité ci lu ñuy wax sentiment anti-français man ma koy tudd sentiment anti présence militaire euh, française donc Russie am na intérêt ci ci bañeel bu ñeneen am ci France moom mu mun a taxaw pour jëmmal boppam gagné ci ay intérêt que ce soit économique militaire ou politique ou diplomatique et Christian Sambou maa ngi lay remercier bu baax a baax si leeral yi. maa lay gërëm soxna si. may fàttali ni docteur nga en sciences politiques merci beaucoup Christian Sambou. merci merci beaucoup madame.